moom kenn du la présenté ci réew mi tey ñu ñëw ci ndogu yi nga xamante ne Papis moo koy def bëggoon nañu xam lan moo waral teewaay bi. diggante jullit ak mbokk ma rek xewle xelam daj la ca mu ne sàkku naa ci sab teewaay nga daal di ñëw dara jaal bis ba loolu rek a waral teewaay bi ak kóllëre moo nu fi indi lii mooy yëfi. waaw waaw dajaloo fii mais yéen ñëpp bu ngeen gisee da ngeen di saafonte kaf ree mel ni benn bopp ngeen te bu ñu leen gisee ci internet yi daa mel ni du demee noonu. waaw euh, euh, yàlla moom mooy def ne dafa si am nit ñoo xam ne man nga leen di gis di leen jël baat am nit ñoo xam ne kenn du leen jël baat ndax seen doxalin wu rafet lenn ci alaaji masila mi toog soppe la xarit la. ànd jàmm la ci démb tey soog a ñëw loolu yàlla def na ko bi wi ànd di jëflante internet xew na xewul xaw ma ko ci lu ma ko mën a jëlee baat ñeneen ñu ngi fi fekk maa ngi dégg léegi ñu ne Cissé beneen Cissé nga ne la ma ne ko fa tabaarakallaahu noonu la ndax lu baax te rafet rek wàllu am ca waaye ñeneen ñay jëlantey baat ñooñee waaye du Cissé ñiy jëlante baat ñooñee la waaye du Cissé bu doon ne question bi daa jog ne Serigne Cissé gis nañ ne jël nga niw baat dinaa am nu ma tontu waaye ñooñee di jëli baat ñoom la waaye ku mel ne El Hadj Massi la mii xam nga ne bu Serigne Cissé toogee di ko yàq boppam la yàq bu ma toogee di yàq euh, euh, Cheikh bi euh, nu mu tuddati Sa sama bopp laa yàq ndax bu ma toogee di yàq Serigne bi Cissé sama bopp laa yàq. ndax ñëpp ñoo xam ne danoo bokk rek sol seenu dàll di ko sol ngir jaam ñi boo ci yàqee kenn yàq nga ñëpp. Serigne Cissé en tant que Serigne Cissé man li ma gëm te mu doon méthode bi may doxee lépp loo xam ne daa bëgg a euh, saltel deru sëriñ Serigne Cissé na noonu ci loolu la ñuy dox. ñun loolu loolu loolooy sunu drapeau daal. ñëpp bu Modou amee combat yéen koy ñaanal de yàgg ngeen a gisee jotaay bi yàgg naa am. waa lii yàgg naa am yàgg naa am ñoo bokk lu ñu xool bët ñoo bokk benn bët boo xam ne ñoo bokk fu nu ko visé ci ak rafetal ci lépp nag ñoo ko bokk Modou sunu nit la sunu xarit la ndax damay faral di wax ne ànd neex na waaye ànd ak kile yëpp daa ci ànd ya ànd ak xamit kan neex na ci ànd waaye ànd ak ku xamul yaay kan yo yoon jon na yow nga xam ki nga doon waaye booy ànd ak nit mu xam ki nga doon dana waral lu mu xewle nga war a mën a ñëw taxaw ca keneen ku taq ci moom it lu mu xewle nga gis ko ca defe naa ne ñi nga xam ne njaboot lañ ci Modou ku ci xewle da nga ma ca gis gis ca Alaaji Masilla gis ca Satouba gis ca Cissé ñoom ñëpp biñ mujj a daje maak moodu ci programme ci ngénte Mor Cissé sama mag ji fa ñu daje. Euh, euh, deuxième ba ñu nga dajewaat ca yeneen kon nii rek la nii rek la euh, moo tax ñuy daje daal waaw waaw. Mm. ñoo ñoo gën a ñoo gën a bëgg ci sang bi yàlla na yàlla fay ta barkeel. Mm-hmm. Mm. Ama Baldé Modou Lo Ama Baldé ah, man de daa am lu ma ca waxoon ñu ne ma ñu ne ma la nga wax dafa dafa kii woon ndax man dama ne lépp loo xam ne day indi fitna ci dëkk man sëriñ Cissé damay ñaan ne loola yàlla bu mu am loolu laa ca waxoon te loola it ba tey sax man naa caa delluwaat te naan dadi buñ taxaw. ndax ndax fitna déedéet ndax fitna la rek fitna la rek fitna la fitna la jaamaarloo fitna rek lay jur fitna la rek ñoom ñaar nag bëggante nañ ko waaye ñun man man personnellement man Serigne Cissé sama waxu démb ci sama waxu tey. bërëb bi nga bërëb maanaam ñaari jëmm yi damay faral di wax ne bu dee ne lenn la loo xam ne ñoom ñaar kese kenn ku ne da ko def ngir sa yëfi bopp ndax Modou bu jëlee xaalis la ci moo di encaissé ama encaissé ca xaalis waaye peuple bi toll ci seen topp ci seen ginnaaw bu ci loraange bëggee bëggee dugg ñaan yàlla ne bu mu am moo gën ndax ñaar waru ñoo yóbbu téeméer loolu rek waral ñune ne ñu ne bu bu mu am loolu rek la waaye du leneen waaw loolu rek la waaw bàyyi ji li waaw ca lay xew ak tolluwaay ak loolu moom famasa akaana wa maalam wa maalam yasa waaye walaw anna kulal wara ajbahum famasa akaana wa maalam yasa waaw nañ bàyyi foofu ñoom alaaji masila ak ñeneen nit ki xam nañu waaw waaw bu baax alhamdulilah tey ñuy fekk la ci ndog bi nga xamante ni euh, Papis Xarañ loo moo ko xewle ñu fekk la fi daanaka duma la laaj loo fi def mais numéro diis moom ñëpp ñëpp dégg nañ ko numéro 10. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ci ñëpp euh, di gërëm ñëpp waaye nag di gërëm Papis ndax li mu def nii rafet na trop li mu def ni mënoon naa wax ñun ñëpp la waroon hmm. waaye tamit ñun ñëpp benn lañ hmm. kon su ko kenn defee rek mel na ne wuutu na ñëpp defal leen ko loolu nag la def nii te yaakaar naa ne ci groupe bi ñu bokk ñun muy groupe bi nga xam ne ñoo yor musigu Modou loo defe naa ne Papis moo si gën a doon xale ci at ci at waaye nag moo si gën a doon mag ndax lii li ma la wax rek ñun ñëpp kenn ku ne waroon na la mm. waaye xel bi ak kattan gi moom la ko yàlla may mm. dañ ko koy nangul mm. wax naa la sànq na la dafa am benn aay bu neex a jàng ci senegal neex a firi naqari dund mooy inal fadalla yuti man yasa wala sufadal azim yàlla nee na maa jël ngëneel jox ko ma neex ngëneel gi tey yàlla papis la ko jox kon dañ koy nangu ñun ñëpp mu nekk na sunu raq nekk sunu nit nekk sunu xarit ñi fi génnaat nii muy xarañ mi dinaa suma xarit la woon euh, ñoom ñëpp ñu génn àdduna ñëpp sunu xarit looñ kon nag yal na yàlla yërëm leen jéggal leen loolu moo fi sunu tànk tey waaw. waaw dégg naa ko bu baax. Euh, combat Modou Lo ak Ama Baldé waaw bi moom defe naa ne dara xewagul presque mais gis nga fitna yi ci commencé am. signature buñ mujjee dem man ña doon dem ci laa bokk mais ba ñuy toll ci bunt stade bi ay xeer yu métti lañ ñu dogalee lu ne yor nañ ko ay xeer. kenn ku ne yaa nga yor xeer yaa nga yor butéelu saw man ñi d'accordoon nañ dem ñibbi si waat ci laa d'accordoon man parce que ñu bëri dina wax nañ dem man ma nañ wuññee ko dem ñibbi lu tax ma nañ wuññee dem ñibbi ñun demuñoon pour guerre dañoo demoon pour face to face ñële ñëw pour guerre su Modou Lo demee yegg ci stade ba beneen nit bu fi ñàkk ba kanam responsabilité la moom parce que Modou su wëññeekoo ñëpp wëññeeku mais su su avancé dem ci kanam ñëpp def ci dem ci kanam yëfu mag la def yëfu xel la def loolu tamit maa ngi ko ci sant di ko gërëm te ñun ñi ñëpp suñ toogee ak papis lii nii yëpp ginnaaw yàlla moo doo ko waral wax dëgg yàlla ku neex a la ku mën a muñ la nit ku gore la ku bëgg dina la ku màndu la ku tabe la ku yaatu la suñ waxeele su naaqulaay temps la rek noonu la damay faral di wax léeg-léeg nit wax Modou dara ma ne kenn ku ne di nga ànd moom def ko loo xam ne waroon na tax mu bàyyi la te mu jàppal te yàlla tax ba déggoo ci mbedd moo xarit dëgg suñ koy wax Modou bokk na ci xarit mooy lan mooy ki xam ni bu méttee nga gis ko bu neexee nga gis ko bu ngeen jëflantee keneen du ko yëg moom noonu la ko yàlla bindee kon ñu ngi koy sant di ko gërëm moom tamit waaw mais Modou Lo Ama balde combat bu doy waar la lu yéeme la waaw bëgg naa nag lancer tuuti wax ci tuuti moy muy ñaari kaa yëpp ñun sax suñu cas defe naa amu problème mais wax dañuy wax comme ñëpp rek parce que kenn du nangu ne cas am am na nañ ko jàppee làmb xam ni combat bu ne amoon na fi lu ne day amaat day jeexaat ñu continué waat dem làmb kese la. ñoom ñaar buñ duggee ci géej ba kenn ku ne loo mun def sa morom nga def ko ko mais làmb ci ñoom ñaar la parce que ñooy ut xaalis ñooy am xaalis kenn ku ne yaa ñoom ñaar ñooy takk ngemb kon. na yem ñoom ñaar seen diggante quoi waaw. jërëjëf am solo maa lay jaajëfal jërëjëf jërëjëf. sëñ bi maa ngi lay baax di la si. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu mbokki taalibe yëpp mbokki jullit yëpp ñoo ngi leen nuyu ci nuyoo bi Serigne Mountakha Bassirou yàlla yàggal ko fi lool te mu wér di ñaanal tarixe yëpp Tijaan Xaadir Laayeen Ñaseen yëpp ñoo ngi leen di ñaanal di nuyu waa bitim réew yëpp waaleykum salaam wa rahmatullah mu bañee juum ci sëñ bi mun naa sëñ si sa borom xaas de. sëñ si sa borom tawfeex. borom tawfeex. Mm. <laughs> waaw macha allah tey mu ñëw fekk la ci ndogu ki nga xamante ne mooy euh, Papis seen diggante yi ñaar lal la gis naa fi roi des arènes Modou xarañ loo mais dafa mel ni diggante bi ak yeneen sëriñ si nga xamante ni vraiment fekk naa le fi seen diggante ñoom lal la. waaw waaw diggante ak Papis mooy leen bokk la mooy danoo bokk sëriñ Touba. mu nekk koo xam tamit ab taalibi la doon koo xam ne tamit nit ko yaru la ko dal la nekk tamit taalibi borom daara ande daanaka boo ko gisee da ngay jàpp ne ñëppay ab sëriñam mu nekk xale boo xam ne tamit chaque année day def lii daaw mu defan ko yàlla def mu fekk ñu génn ren nag mu fekk ñu fii senegal ñu ni danañ toog xaar ko fas yéene ñëw ci bis bi bis bi nag biñ ci wax dëgg yàlla suma sumu xol sedd na te tamit wax dëgg yàlla lii rek moom moo moom la ndaw man ci àddina muy nga xool lu baax ginnaaw ba nga amee waajur yu baax nga nga jëm ci lu baax lii rek am solo yàlla def nag nit moom saa bu wooree ba ngoon nga yëkkati benn tàndal ma jox ko rek xoolal yu woowa ci nekk wante boobu rek yaa ngi gis nekk fii mm-hmm. kon nga xam ne tey jii nii lim ci doon wër rek am nañ jot ne bu euh, ci yàlla ni mm-hmm. eh, xolam xolam dina ci sedd bu neexee yàlla incha allah daal suñ diggante ak Moodu nag wax dëgg yàlla dafa doon koo xam ne tamit moom it dañ ciy wax ne ab taalibe la rek ndax yaakaar na boo bëgguñ sax di ci wax lu bëree bëri wante daal nit ku baax la moom di nekk nit koo xam tamit nit ku yar la di taalibe di ko ñaanal tamit yàlla combat bi nga xam ne moom la jël yàlla may ko si ndam incha allah bu neexee yàlla Hmm. ni ma gisee yéen ñëpp ngeen nekk sëriñ si gis naa Sa Touba gis naa Masila gis naa eh, sëñ Mor gis naa fi ñëpp ñu ñu nekk fi eh, yéen ñi dafa mel ni bu Modou amee combat yéen ñëpp ay nekkaat ci affaire yi di di yëngu. xam nga <laughs> ñun ay ay nit lañ. Hmm. ndax yàlla ba mu waxee wala xam ne garab naa benn aadama ñu ci nit ñi. Hmm. ñu nag nit ñi nag ci leen lan wute mooy xam-xam. ànd ay nit kese dañuy lekk di naan di def lépp. tey jii ne boo demee commerçant yi ngi ànd seen biir yéen journaliste yi yéen a ngi ànd seen biir defal seen i groupe seen seen groupe WhatsApp ak yëpp tey jii nag ñun sëriñ si buñ ko defal dana kar wax dëgg yàlla boo xoolee nag wax ji nag bari na yeneen ak yeneen bari na wante ñun ñëpp benn suñ biir wax dëgg yàlla ñun ñëpp benn suñ biir wax dëgg yàlla ku ci gis sa morom danga koy màggal wàcce ko ndax ëpp leen kenn lenn tamit ndax cër bépp yàllaa koy jox waaw loolu la daal wante ñun ñëpp benn la wax dëgg yàlla waaw. Modou bu amee combat yow ci lan nga yor ci wàllum ñaar takk loxo yi takk tànk yi wala lan ci lan lan nga ci. sëñ Cissé maa ngi siy Cissé waaw sëñ Cissé am suñu Babacar di sama turandoo am mooy sëñ Cissé am suñu Babacar ba maa sëñ Cissé borom tawfeex waaw Modou moom bu amee combat lañ cay jëflante moom loolu suñu secret bopp la rek waaw suñu secret bopp la wax dëgg yàlla waaw dañ koy nëbb moom dañ koy nëbb waaw. a boo xamante vraiment xam nga ni boo toogoon sax fi nga toog nii. non ñaanal suñu te yaakaar naa képp koo xam ne da ngay liggéey ci mbir rek da ngay pare pour lépp ba loolu la ca fekk rek nga nga mën ko ñaanal suñu métier moom amul lii leen gën a for wala leen ñaanal suñu métier rek loo xam daal ci nga bàyyi sa sa sa temps bi def ci sa àddina sépp daal yaakaar naa war nga kaa respecté respecté boo xam ne fun la ci fekk rek nga mën a foofu daal. engagement yi nga jëloon ci Coupe bi lan moo taxoon nga jël ko yooyu sëñ bi boo demoon fi mu toll nii lan ngay wax waa koñ bi. waa loolu daanaka. dañuy sant yàlla ndax lu war a xew suba yàlla moo ko xam ande yàlla day may tamit ab jaam muy seen doonte lu sori ande loolu tamit ak sant lañ ci doon def liñ ci doon wax ne du suñ naf si bopp moo tax ñu koy wax lun gisan la te luñ leeral la ñu ko doon wax ban koy waxee nag suñ borom def na tombe loola am dañ koy sant yàlla coupe d'Afrique bi yëpp génn nañ wax ci yàlla def chaque match ñu génn wax ni mi demee ak score yëpp yàlla def muy tombé qualification yi ba xeli askan wi yëpp dallu tamit ñu ñooy génn naan wax ni suba la match ñu ne na seen xel dal bu neexee yàlla Sénégal dina qualifié loolu ak sant la rek waan dañ ci sant ci yàlla rek te xam ne yàlla moo man yàlla mi nga xam ne tey jii mooy maye xëy na mooy xool ku ko neex mu may ko ko ci sant daal <laughs> waaw ñun moom ñun moom ñoo ñoo ngi ñaani daal waaw ñoo ngi ci ñoo ngi ci ñaani daal wax dëgg yàlla tey nag lii bisu ndogu la jëruñu ci yaatal ci leen ak leen daal na noonu ko tëggee war baax na jërëjëf jërëjëf ni tey euh, xarañ bi Medina Aline Thiaw euh, Ablaye Sarr coach muy kenn ku ci nekk mun naa la wax histoire yoo xam ne maa ngi ñoom dund nañ ko xarañ Medina biñ ci randal hommage ni tey ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla xare àjjana Arabie Saoudite la génne àdduna bi muy dem man maa ko indi fii tey xarañ mi dinaa maa ko fi indi ñu nekk ay at bokk benn néeg yaakaar naa man la mu jëggi santeeg fii ci réew mi ndax maako ko yóbbu aéroport ñu joxante loxo ci aéroport bi mu am lu ma wax ma am lu ma ko wax waaw lim ma wax nag keroog bi mu demee bañ tàggee ma ko laa ne am na ñoo xam ne yàlla da may ndax lim ma waxoon loolu laa gis waaw non bi muy dem dañ dem ba aéroport ma gunge ko ndax affaire bi mu koy dox yëpp maa moom voyage bi yëpp ñoo ciy ànd Euh, ma gunge ko yóbbu ko ba aéroport ñu taxaw mu ne ma maa ngi dem xaw ma dinaa ñëwaat wala duma ma ñëwaat nit ki moom demam rek la xam xamul xamul xamul xamul ñëwam euh, jili bàyyil foofu wallahi yàlla na ko yàlla yërëm te ko àjjana mu ne la maa fi mu fi mu jëm gënal ko fi mu jógee suuf sedd ci kawam hmm. ndax koo xam ne la ku sori woon ci man la hmm. waaw ñu ànd fu nekk seq lu nekk waaw ma xamal ko lu bari moo xamal ma lu bari xam na la nit ki bu demee bay voyage lépp maa ko dox maa ko yóbbu ba aéroport mm-hmm. man la mujj a gisanteek man chaque jour dañuy déggante lu mu nekk ma xam ko mu dem ba waaj pour ñib si lu dog bi ndogal bi dal ko ci bis weeru koor yi la ko daloon mm-hmm. waaw mënu ma ci expliquer daal ndax xam naa lu ma dund ak moom ñu toog fi fekk Gàmbi la ma fekk téléphone moo sonné benn waaye bu mu nekkaloon mu woo ma di ma laaj ay information ne ma njëgu yëngalu xew ma ne ko lan keroog woor naa ba ngoon jot dogu ma dogu ma ndax keroog ñàkk naa ku nekk li ma dal noonu dalu ma waaye xam nga rek àdduna ak loolu ñoo ànd li ma gën a frappé nag mooy jili bi muy dem bi ñu tàggatoo li ma wax te maa ngi ñaanal njabootam gi mu fi bàyyi yàlla sàmm leen taxaw leen si barke Seydina Mohamed xam nañ ne nga xippee ji àjjana ndax bi muy dem daan doole taxaw famem moo ko taxoon a jóg dem foofu tey mu dem yàlla jël fa bakkanam mu daal ko ci bisu weeru kooram mu am accident gis nga doy waar lool ñun ñi ñëpp tey bu ñu ñëwee ba weeru jot papis di ko fàttaliku defalu ko ko moom kenn rek ñun ñëpp la ko defal mm-hmm. kon lii ñun ñëpp fi war a teew ñëpp ci war a dugal suñu loxo ñëpp ci war a àntu mm-hmm. di ko ñaanal papis li mu def ni na ko yàlla fulal ay yiw si barka Seydina na di ñaanal képp ku fi teew yéen tamit di ñaanal baax a baax a baax yow ak Lamine mm-hmm. ak euh, bu fi teew rek ñu ngi koy ñaanal baax a baax boo xoolee moom la mooy tiset bii nii euh, Cheikh Diaw Cheikh Diaw Cheikh Diaw sol waaw mu nekk loo xam ne daal ji lii amaan na euh, lu doy waar la daal wallahi lu daw yaram lu daw yaram lu daw yaram loo xam ne nii kenn mënu koo expliquer doomu aadama yi